noo tudd yow ah boy naka nga tudd yow Ismaila naka ba foo dëkk ah Ismaila ba foo dëkk Kolda foo dëkk fii nii Malika Malika. Eh, jox ma numéro bi ñaata la. lan mooy sa liggéey yow. waaw. 700. lan mooy sa liggéey. 01 36. ah. 739. na ngaa commencé. nga ne a Naga. Eh. Ismaïla Naga. présenté wu. nga commencé boobu baaxatul. mais eh. wax la leen. te fan nga jàngee. kan man. Ah. jàng naa Mbour jàng naa Kaw eh, kii Kaolack jàng naa fii. Eh, booy lan mooy sa liggéey laa la wax. waaw. léegi nii. waaw. non actuellement xanaa boutique. boutique. dégg nga. boutique damay dem foofu renforcer sama mag bi rek. ah léegi bu ñu la téyewoon sànq bu ñu la bu ñu lool lan nga doon wax. damay dem après eh, loolu eh, eh. nga wàcc voilà dafay tëdd yow lan nga ma si suba si lan nga ñu waxoon. ah. néew ñu élève sergent élève sergent dina dina dina mel nii comme li nga mel nii bàyyi ay xaw ay. leer ay waaw. ah. kii ñaari tur la fi joxe ñetti tur. nyata turun xamul lu ñaata tur nga jo nga am yow quarante eh. boobu foo ko jëlee eh. pochette bi ak quarante ko pochette bi maa ko bi eh. Ya. bi eh ya. bi ban boutiquier ya? boutiquier bi wol grand pare na nga bi tey na ko jënd bii. sànq sànq bi bi bi ko waaw bi nga jënd nii. fan nga jënd tey bii tey tey bii nii tey bii nii tey nga ko jënd. waaw lu ma la laajte woon euh, ci suba si lan nga ma waxoon. Eh, nee ma woon sa grand bi moo ko moom. du eh, eh, loolu nga waxoon.